mbokk internet yi nuyu naa leen ne leen dal nag jàmm comme ni ñu ko waxoon fan yii ñu weesu cour de justice bu CEDEAO amal na ni ki tey ci suba li ñaareelu audience euh, mu ñeel recours contre radiation bi ñu rajo Ousmane Sonko ci liste électorale waaye itam tas bi nga xamante ne état bu Sénégal pas na ko lii di euh, parti am di euh, PASTEF moom nag cour de justice CEDEAO bu mu doon déglu tey ñaari parti ñi nga xamante ne ñoom ñoo di avocat Ousmane Sonko yi ñoom ñëwaat nañu jot na kaa fii ci Sénégal rawatina lii ñu toll ni maanaam diggante prison bi ak fi nga xamante ne moom moo di hôpital principal fu mu nekk di fajoo boobu ak léegi ñoom nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di avocat Ousmane Sonko rawatina kii di maître Clédor Ly ak ki nga xamante moom moo di Juan Branco bu ñu jëlee nag kàddu ñaawlu nañu baax baax li nga xamante ne la Ousmane Sonko nekkee waaye tam taxawaay bi nga xamante ne état bu Sénégal taxawee ko te ñu jàpp ne rek état bi taxawaayam du lenn rek du dul euh, bëgg a tere ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko jongante élection présidentielle présidentielle bu février 2024 euh, euh, ñoom nag ci ñu sukkandiku seen wax bi mooy li nga xamante moom moo di tribunal grande instance bu Ziguinchor bi nga xamante ci loi Sénégal la bokk moom moo maye ki nga xamante moom moo di Ousmane Sonko pour ñu daal di koy dugalaat ci lii di euh, fichier électoral waaye itam ñu daal di delloo tuuram ci liste électorale looloo tax nag ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di avocat Ousmane Sonko ñu jàpp ne rek li nga xamante ne moom moo di cour de justice bu a dogal pour ñu daal di état bu Sénégal mu daal di dugalaat tuur Ousmane Sonko ci li nga xamante ne moom moo di liste électorale waaye tamit ñu daal di delloo li nga xamante ne moom moo di parti Pastef ci ak ay akam ak ay ñi nga xamante ne euh, tas nañu ko te ñu sukkandikoo ci li nga xamante ne moom moo di loi ñoom nag jàpp nañ ne bu fekkee ne li nga xamante ne moom moo di cour de justice bu CEDEAO yoon lay doxal dina daal di delloo li nga xamante ne moom moo di tur Ousmane Sonko ci liste électorale yi waaye tamit daal di delloo li nga xamante ne moom moo di parti Pastef fi nga xamante ne euh, foofu la nekkoon ñi nga xamante nag ñoom ñoo fare ci wàllum kuje gi maanaam ñi nga xamante ñoom ñoo représenté lii di état bi ñoom bu ñu jëlee kaddu nag njëkkoon nañoo xamal ne li nga xamante ne ñoom ñoo di seen naataango yi nekkee fii ci euh, Sénégal euh, du ñu mun a ne moom moo di audience bi ndaxte dañoo am problème euh, connexion waaye bi ñu bi ñu demee ba ki nga xamante ne mooy juge bi bu mu ci loolu moom juge bi dafa xamal ne nag li nga xamante ne moom moo di problème connexion bi mënul tax boole ñu daal dakk li nga xamante moom moo di audience bi ci la wéyale li nga xamante moom moo di audience bi ñoom nag ñu jëlee li nga xamante ne moom moo di kaddu ñoom ñi nga xamante ne état du Sénégal la ñu représenté ñoom xamal ne nag li nga xamante ne moom la euh, ñii di avocat Ousmane Sonko jàpp ne euh, lu droit wala état bu Sénégal doxalewu droit du lenn lu nga xamante ne euh, lu dëgg ndaxte li nga xamante ne moom moo di état bu Sénégal dafay sàmmante ak li nga xamante ne moom moo di ak ay yelleefu doomu aadama yi rawatina li nga xamante ne moom moo di droit ñoom nag loolu la ñu xamalee ci li nga xamante ne état avocat Ousmane Sonko wax nañ ko jëmale ko ci li nga xamante ne jàpp nañ ne rek Euh, du dëgg du yoon li nga xamante ne état bu Sénégal euh, noonu la nekkee moom nag li nga xamante ne moom moo di cour de justice bu CEDEAO bu mu jëlee kaddu nag dafa euh, xamal ne rek moom déglu na ñaari parti waaye li nga xamante ne moom moo di dogal bu nar a tukkee ci mbir moomee dañ koy dakkandi ba le 17 novembre ci la moom cour de justice bu CEDEAO daal di jël dogal jëmale ko ci li nga xamante ne moom moo di recours bi ñoom avocat Ousmane Sonko yi déposé foofu ci cour de justice bu CEDEAO mu ñël rek radiation bi ñu rajo moom Ousmane Sonko ci liste électorale ñu tas bi ñu tas lii di partiyam di Pastef ma xamal ne rek ba léegi li nga xamante ne moom moo di affiche parrainage yi moom Ousmane Sonko jotagu si ndaxte ki nga xamante ne di mandataire am di Ayib Daffé eh, bu mu mujjee dem fële ci deux heures bu ñu ko dalee ba pare dañ kaa xamal ne rek ñoom mënaguñ ko jox li nga xamante ne moom moo di fiche parrainage yi ndax ba léegi ñu ngi tënku ci li nga ne moom moo di communiqué bi ñu génnee maanaam mënaguñoo jox ki nga xamante ne moom moo di eh, Ousmane Sonko lii di fiche parrainage ndaxte tuuram nekkagul ci li nga xamante ne moom moo di euh, liste électorale yi donc ñoom euh, ñoo jox ki nga xamante ne tuuram nekkul ci liste électorale bi li di ay fiche euh, parrainage ñuy wéy nag di toppandi mbir yu ba xam ana loolu yëpp fal na nar a mujjee waaye rawatina ñuy xaarandi li nga xamante ne moom moo nar a tukkee ci dogal jógee ci cour de justice bu CEDEAO bi nga xamante ne ni ki le 17 novembre bi ñu dëmmal lay joxe verdict mu jëm ci recours bi nga xamante ne moom la euh, avocat Ousmane Sonko yi déposé woon foofee te tey suba rek moom cour de justice bu CEDEAO doon déglu ñaari parti li nga xamante ne ñoom ñoo di avocat Ousmane Sonko yi ñi xam ne kii di maître Ciré Clédor Ly ak maître Juan Branco ñoo leen représenté foofu waaye tamit état bi kii di euh, agent judiciaire bu état bi daal di koy représenté ak beneen avocat bi nga xamante ne ñoom itam teewoon nañu foofee euh, ci salle d'audience bi bi nga xamante ne fële ci réew réewum Nigéria ci Abuja lañ doon amal audience bi ñu mel mu ñel nag recours

justice de CEDEAO bu CEDEAO dina réhabilité kii di Ousmane Sonko ak li nga xamante ne moom moo di parti Pastef wala dina dëggal li nga xamante ne moom moo di dogal bu tukkee ci état bu Sénégal maanaam rajo bi ñu rajo Ousmane Sonko ci liste électorale yi wala tas bi ñuy tas lii di parti Pastef ma leen di jox dig daje si yeneen jotaa xibaar yi incha allah ci la rajo international